والقلم وما يسطرون wa rahmatullahi wa ñoo ngi sant suñu borom subhaanahu di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan suñu borom mu may ñu dund gu barkeel di santaat bu baax ci xéewal gim ñu may ba ñu ñëw ci programme bi nga xam ne moom la C3S compagnie Serigne Seck Sénégal di organiser at mu jot duppee ko yaatal mbindum alquranul karim ñu ñëw ba agsi ci tey jii war a amal neexal yi nga xam ne moom la ñuy jox ñi nga xam ne ñoo ci gën a ràññeeku war a ñëw ci cérémonie boobu. ni ko Serigne Mbacke si la waxee ku xam jotaay bi xam lan mooy solo si mooy génnut alxuraan ndax alxuraan Serigne Mbacke ku ne xam na ni ay étapes yu bare bari tey nag ñu jël bu ci ràññi ko lool loo xam dafay aju ci bind alquranul karim muy rasmul quran boo xam dafay sukkandiku ci musaf al usmani yi bi nga xam ne képp ku gëstu alquranul karim xam nga ni mbindum alquran nekku ni nit ki daf koy binde ci nu mu ko neexee dafa am ay règle am ay dawaabit yoo xam ne amul sañ-sañu génn ko. jërëjëf jërëjëf sëñ Mbacke. Euh, ñu woo euh, ñi nga xamante ne ñoo war a ubbi jotaay bi ci alquranul karim di donga yi bàyyi ko fële ca bayti sek. bayti sek bismillah. a'udhu billahi إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها صدق الله العظيم jërëjëf jërëjëf euh, Baye Serigne Seck di donga bi doon jàng alxuraan noonu nekk ci daara ji nga xam ne moo nekk ca Bayti sekk di daara joo xam ne alaaji Serigne sekk mii di amal concours yaatal mbindum alxuraan mi. te sëñ Mbàkke daara jooju lu mat ñaar téeméeri personne ña nga fa ñuy jàng alxuraan ak ñoo xam dañuy jàng yeneen langues yi. ni ñu def rek mooy woo ki nga xam ne mooy sëñ Bolle Mbay Bollé mbay mooy yëkkati kàddu gi nga xamante ne mooy kàddu dalal gan ñi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alhamdulilah. allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. ñoo ngi leen di dalal ci turu alxaaji Sëriñ Seck kon ñoo ngi leen di sant bu baax a baax ci wuy si bee ngeen wuy si ndax woote ñu wuy si la dafa neex. kon ñoo ngi leen di sant ci jéego yi ngeen xam ne moom ngeen jéggi ba ñëw fekk ci ndaje mi. yàlla na ko yàlla def yiw ak yéeg a ngeen di jéggiwaat ba ñibbiwaat seen seeni kër. kilifa yi toog ci seen ginnaaw di waa comité scientifique bi nga xam ne ñoo doon wommat liggéey bi ànd ak mbokk yi wër réew mi waaye saytu mbind mi topp ko ba agsi tey ci cottitali ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax ci seen liggéey boobu ngeen def ak coono yi nga xam ne moom ngeen ci tegoo yépp mooy ñu teewlu euh, vidéo bi nga xam ne maa ngi ko doon junj léegi di benn présentation boo xam ne kilifa gi ñu ciy présenté mi ngi tudd Serigne Mbacke Sall. da ngeen gis euh, muxaddima bi ci vidéo bi. mbind mii nag bi ma koy mbind it am na lu sama xel daaj ndax mas na maa bind ab kaamil yot ko suñ fàllu fii ci ndindi bi mu ko ubbee la ma wax nga xanaa daaw jànge ndànk ma ne ko ah, de laa daan jànge suñ mu daafis bu nekku fi waaye doomam a ngi fi mu suñ mu boobu moo nekkoon bëkk ne bi mu ko ah suñ bi loolu yéeme na di mu ne ko mbind mee ma ko wax <laughs> yëkkati fa paquet ab kayit ak weccet jox ma ne ma nag bu ko bàyyi xam naa diggante boobu na yàlla tënk ma ba ñëw ci jamono jii mu mu ma di ko bindaat dafa mel ni kaamilab sëñ Fàllu boobu ba mu ne bu ko bàyyi dafa mel ni loola moo ma soñ soññaat mu bindaat kaamil bii. ren laa ko bind bii moom ci mm, sambiye bii jàll ba jàll bi tegee woon xeeru jumaa jooji ci ca dëkk ba keroog bi ko tegee keroog laa tàmbali kaamil bi mu mu tombeek baraxlu koor wari ma àggal. waaw ñetti weer yi daal ci laa bind kaamil bi moom waaw defaraat bi kay moo jàll ñetti weer yi nga xam ne moom nii la ma gis ci kay duma neexul ma follat ko waaye mbind meeg bi yàq maas bi moom ñetti weer la lépp uqaddimu hadihi alqasida ila kulli aadaai almajmua allati tuddaa bi yaatal mbindum alquran majmuatun min fariqin mutaxassisin fi majaali tadrisi alquran qaamu bihi min tanzimi almusabaqati alrasmiya kama atasharrafu bi taqdiri aljuhud almumtaazati allati badalaha alxaaji sëriñ sekk xidmatan li kitaabillahi tabaraka wa taala maada aqulu liman lirrasmi awaanu sharraftumu fannahu farrasmu arkaanu qad kaana muxtafiyan bal kaana muntamisan an bacdi maxdaratin maa daaka buxtaanu lawlaakumu gaaba anna rasmu mundasiran abqaytumu tibqa ma abdaahu usmaanu bismillaahi rahmaani rahiim yow téere yàlla bi yow tegtal bi yow wile lay yow gindi waa kon bi wom mat sépp cam solo ngoy yaa ëmb yërmaande yaa yor saafaraas ku tawat yaa saytu pas-pas yi yaay jubbanti képp ku joy ku ngëb ci yow ngëb na buumag yàlla yaa gën a wér doo bu ñuy raw ci fàllay mbaa aciiti garay sëm ngir amul pakk baa ay sel ku soobu ci yow du sanku dégg du ko jam baaxal nga sang yëwey bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ayuha alxafdul kiram assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ixwaani al arju أن تسمحوا لي بإلقاء نبذة قصيرة عن تاريخ كتابة القرآن الكريم والرسم العثماني موضوع هذه المسابقة وكتابة القرآن الكريم سنة نبوية توقيفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد عين لجنة لكتابة الوحي فور نزوله مع الإشراف والإشارة ila mawdihi al-ayat fatrata tanzilihi kulli wa kaana alayhi salaatu wa salaam yahudu as-sahaaba ala muhaafazati haadha at-turaath al-qayyim hatta adda bihi al-amru ila an qaala fi hadiisin rawaahu Sa'iid al-Khudri radiyallaahu anhu man kataba anni siwa al-Qur'aani falyamhu wa amma ismu Usmaani fayaodu taarixu bidayatihi fi xilaafi sayidna osman radiallahu anhu xiina ayna lajna biriasat zeyd bin saabit li nasxi masaahifa wa irsaaliha ila al amsaar al islaamiya li hasbi al xilaafi alladi kaan yadibu bayna sufufi al muslimin bi ixtilaafihim fi xiraat al quraan al kariim fi ma waqaa baynahu wa bayna Seydina Omar wa Hicham ibnu Hakim fi suratil furqaan li annahu alquran alkarim qad unzila ala sab'ati ahrufin wa bitmi sharika C3S Serigne Seck Sénégal tad'u al-lajna al-'ilmiyya jami'a ad-duwal al-islamiyya lil-qiyam bitanzimi musabaqa mithla hadhihi musabaqa wataniyya fi rasmi al-quran al-karim على الصعيد الوطني وهي تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد الوطني وفي كثير من الدول الإسلامية حسب ما توصل لدينا من معلومات في ميدان المسابقات والإخوان الحضور يكونون يعني شاهد على ذلك نقدم الشكر الجزيل لجميع من قاموا بتلبية هذه الدعوة بداية من الممثلين لطريق الصوفية wal aima wa duat wal munasamat al islamia wa wisarat saxafa wa wisarat tarbia al watania wa mufatish daara in kaan mawjuda wa silk al diplomasi wala marakis al saxafiya barakallahu fiik sëriñ Sam Mbacké ngi lay jaajëfal bu baax ci exposition bu am solo bi daanaka ñëw na ci histoire mbind alquranul karim ak itam lan moo tax c am xalaat bi ak itam lan mooy jubluwaay bi muy liggéey liggéey bu am solo ci kuréel gi Serigne saam ñu ngi lay jaajëfal bu baax. xam naa dañuy jox rek ki nga xam ne mooy Serigne naa Mbacké. discours bi Serigne Sam def ci arab moom la ñuy defal ci français. Monsieur, Son Excellence, l'ambassadeur de la Palestine, messieurs les représentants des familles religieuses et des associations islamiques, mesdames et messieurs. les représentants de la famille de Serigne Mokhtar Khadissi, parrain de cette édition, Madame l'invitée d'honneur, Sorna Diabinte Mesdames et Messieurs, les finalistes de cette édition, chers invités, permettez-moi de vous faire une brève présentation de l'historique de la transcription du Coran, objet de notre concours Yaatal Mbindum Al-Quran, qui clôture aujourd'hui sa cinquième édition. Comme vous le savez, le Coran est révélé oralement par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, mais son intégralité a été transcrite au vivant du prophète, paix et salut sur lui, par des copistes qu'il a désignés lui-même. Cette transcription est l'un des moyens les plus efficaces pour la conservation du texte coranique promise par le Tout-Puissant. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu la xaafidun ci turu association islamique yi ndax bokk nañ ci ñi ci yëngatu ñu yónni ñu waaye ñu ñu gën a mën li ñuy def ñoo ngi toog te ñun xam nañu leen ñoo ngi ñaan yàlla liggéey bi yàlla na ci yàlla dolli barke alhaji sëriñ mi koy taxawoo ak bokkam yi ak sëñ daara yi ak njaboot gi yal na seen teraanga yokk alxuraan nag walla lislaam bi taxawu ko waxtu wu nekk dafa am priorité maanaam awlawiya waxtu wu nekk ñu seet lam gën a soxla ñu taxawu ko ca googa wàll léeg-léeg nag loolu poser problème léeg-léeg ñuy sonn ci lu ñu régler ba noppi waaye waxtu wu ne am na défi boo xam ne ñi yittewoo alxuraan te yàlla wax ne moo koy sàmm te du ñëw bind du sat xalima du joxe kayit waaye kum nar teral nag yaay bokk ci ñuy taxawu téere bi jamono bu ne nag wax nañ ne am na lum soxla ndax bu ñuy seet daara yi ci réew mi ci démb bari nañ waaye mënees na ci jukki rek ci waxtaan daara yi maam Matar Ndumbe Jóob Samba Ayib muy daara yi kokki ci ku ne xam na ne moog maam Maara Mbakke ak sëriñ ma Laamin Saar bu caarin jama ñoo bokkoon di jàng xam-xam ca kër sëriñ ma Samba Caam ca Caaminu Jolof ba yàlla tasaare leen ñu barkeel. ñëw nag ci leneen loo xam ne daaraa ko moom itam ci animation yi muy wàllu boole Eh, boolee alxuraan yi nga xamante ne daan nañ ko defee ay tënk yoo xam ne daan na sàmmal nit ki ak mokkalam daan na ko jàppandi la itam ci mbind ni ñuy def mooy woo Serigne Saliou Sall eh, Serigne saaliwu sàll di kenn ci liggéey bi moom itam bokk ci comité scientifique bi. daa mel ni alquran xaw gee jaxasoo xaw gee jafe moo tax mag ñi takkoon ko ci yennati baat am ci baat yoo xam ne bari gim bari ci alquran moo tax ñu wutal kow boole. mu mel ni dañuy wax ne ah goo xam ne doo jaraan te doo maw ni ku la am sa daanu ah goo xam ne du jaraan du maw ni te ku ko am sa daanu wala yéen atay taa nga laan naa nga jigéen fa yéen atay na ma nga jigéen min xar de leen naa nga lën bi bala atay naa hum yaar yépp moomin bi xayri sultaani atihum ak bi xayri sultaani atihumoo yépp xafraan mu amaat beneen boole runge boo xam ne dañuy wax ne amanoo mahahoo mag ñi daan wax bu ma yóbbee coow li ma nekkee doy na mattee laan xaaloo laan jaahadoo nga baraan bi rahmatin min naa yett yépp xóot was tax yoo xafraan noo humta riim bi bax genn ak maaska ak bax gennug maas ndax booy jàng ci bopp laa yuhibbullaahul jahra da nga dégg mu naan bi bahdin bi bahdin ñaari yoon waaye bahdin genn ak maas ka ñeent la bi bahdi genn ak it juróom la léegi nag pulaar yi ñoo ko daa wax naayo muy nay bi bahdi genn ak maas ka lañ koy tënkee bi baa di maa kase boo nga gawaay bi baa di maa aatay tumooxun na jigéen bi baax di sunoo bihim njoogu bi baax di aswaaji yi nga tëriim bi baax di baax di genn xan baax li maa am sawalaawo nga jigéen li baax di saniyum nóor xalaa baax li lame jamiinaa nga sooraay fii baax li lam ree nga xitaal illaa baax di aswaaji yi nga tëriim loolu masque yooyu li tax ñu di ko faram-fàcce dañoo nga def bi baax din wala nga def ko bi baax di ñu ñëw ci beneen boole bu ñuy wax rusul yi goo xam ne day taara juróom ñetti yoon la ñëw ci alquran min baax di hii bi rusulee nga laan baax da rusulee nga jigéen xalaa fadratin mina rusulee nga njóogu mina an bàyyi rusulee nga xóot fahal xala rusulee nga naxli illaa maa qad qiila li rusuli tafsil biddahan min a rusuli ak awlool xasmi min a rusuli yépp nga la xaafu xam naa masoon nañ ko fi wax muy sukkal tëwee juróom mag ñi nee ñu sukk yàq sukk yàqul ndaag da koy dolli taar sukkal tëwee juróom sukkal juróom sukk yàqul ndaag ma saw fii hilaan bannaw riibatan baraan wa isaa maa xaari boohum sooree lawaw ra'uusahum munaafiqiin moo tax boole dafa xaw a doy waar. moo yaatu mbind alxuraan dafa def benn exposition boo xam booy dugg euh, yaa ngi koy gis ñi nga xam ne ñoo jiitu ci concours yi liñ bind ñu gaaral ko fa ak ñi nga xam ne ay mag lañ bind ay kaamil ci mbind mu yéeme boo xam ne mu taarixee la moom itam ñu wane ko ci bunt bi ngir boo duggee gis ni mag ñi effort yi leen daa def ci alxuraan sonn ci sonn koo xamante si nii jéggi woon na dayoo ba tey jii tax ñu man koo tiim man koo jàng. mbindi mag ñi. ci mbind mag ñi ak lenn ci mbind yi gone tey yi ngir lan ngir ñu wane ndax dañoo wax yaatal mbindum alxuraan bu ñu waxee yaatal mbindum alxuraan nag kon dafay tekki ne mbind nekkoon na fi naka jekk waaye ñu gisoon ne mu dem ba tàmbalee wàññiku ñu ñëwaat ci gën koo yaatal. li muy wane mooy mbindi candidat yi nga xam ne ñoom ñoo jëloon édition deux mille euh, deux bii moom. Euh, Cheikh Anta Gaawaan Gueye moo ko bind mbind bi ñuy wane moom moo jëloon première bi euh, ci anne deux année 2019 bi mbind mi tamit Mohamed Touré Mohamed Touré moo bind lii moom it moo jëloon édition 2000 2018 bi bu ko defee exposé bi nag mbind mi mu jubloo wane moom moo nekk nii su ko defee da ngay tàmbalee ca ca ba njëkk rek mbind mi ñuy njëkk gis mooy mbindum Serigne Mamour Anta Sali Mbacké bu ko defee mbind mii ñuy wane mbind mi muy wane moom mooy mbindum sëriñ maxtaar xadisi mi nga xam ne moom la tuddee bis bii euh, moom it lenn ci ak njabootam ñoo ñu jox mbind mi euh, ba wax nañu ne lii ab kaamil la bu mu fi bàyyi woon ñu di ci jàng mbind mi muy wane euh, mooy mbindum sëriñ muudu Habib Mbàkke mbind mi ci topp di ab kaamil boo xam ne soxna May Mbàkke moo ko bind moom it mbind mi mbindum sëriñ Busa Ilimaan la mbind mi mbindum Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke Euh, mbind mi muy wane mbindum Serigne Makhtar Bousso Serigne Makhtar Bousso ak Serigne Bousso Serigne Bousso Ilemaan ñoom it doomi Serigne Aafiya Bousso lañ mbind mi muy wane mbindum sëriñ Guédé Mbacke la Serigne Guédé Mbacke way juru sëriñ Sam Mbacke mi doon wax léegi moom it mbind moom am mbindam la mbind mi muy wane mbindum Serigne Ibrahima Jaxate mi nga xam ne mooy way juru Serigne As Jaxate mi bind kaamil bu siiw bu tasaaroo boobu bu rafet macha allah euh, Serigne Ibrahima Mbacke way juróom moo mbind mi ñuy ñuy ñuy jàkkaarool ci écran bi nii waaw waaw kay mbind mi muy wane tamit boo ko gisee xam ne mbind mu yàgg la muy mbindum maam Thierno Birahim Mbacke borom daarul moxti moom it moo bind lii waaw mbind mi muy wane boo ko gisee it euh, mbind mi mbindum Serigne Touba xaadallahu maxtaara la la moom it ñu jëlee ko ci ay euh, loxo yu wóor ba sukkandiku ko ba xam ne am mbindam la. ko Serigne Abdou Khoudoss muy exposition bi am na solo waaye dañu am ay gan yoo xamante ni itam Euh, mooy ñi ngeen di jàkkaarloo ñu war a bind itam ñoo xam nit ñu dañuy jàkkaarloo ak ñoom. bu ko defee kon ñu bàyyi leen ñu bind en attendant hmm. euh, ñu ñu ñëw nag euh, ci kanam tuuti wax leen suñ mbokk yi ñooy ñan ak li nga xam ne moom la ñuy def defe naa ki doon dégg bind mbind ngi nii. ñaari bindikat a ngi nii jàkkaarloog yéen ñoo xam ne kenn ku ne am na kiimaan ci li muy def hmm. loo xamante ne danañ ñëw ci xamle leen bu baax sëñ Mbàkke kon dama leen ko fi ay yoon incha allah danañ si ñëw mooy ki xam ne borom bi daf ko nat ba wax jàppandiwu ko waaye mu mokkal alxuraan di ko jàngale en même temps waaye man ko bind te du ko xool daanaka chaque année mu def ay kii yoo xam dañu koy gis kii itam suñu mbokku iranien la nekk mudiru jamiatul Moustapha al alamiya faron Sénégal nekk Mermoz moom itam mu gis ne calligraphe bi nga xam ne Sénégal ñu ngi koy bind dafay yéeme waaye moom itam mu am loo xam ne jekk na ko bëgg ñëw gaaral ko nit ñi itam ñu xam ne Sénégal ñu ngi avancé si bind waaye suñu mbokku iranien itam. ñu ngi liggéey si mbind ñoom itam danañ bind directement ñu exposé ko wane ko mbooloo mi euh, sëñ Mbàkke loolu moom mooy sababu ñaar ñi ngeen di jàkkaar loolu. incha allah ci kanam tuuti danañ leen woon liñ bind defe naa euh, jéego bu rëy ngi noonu te ak yokkute. Mm. ndax tey euh, kenn ci waa bitim réew di doomu réewu Iran ñu dem yëgal ko mbind mi mu rafetlu ko yéem ko ak ni ko Sénégal di defee waaye am yéene moom it feeñ ci image bi. ñëw indi moom it participation am ci mbind mi lool liggéey bu rëy la. sëñ Ousmane Dia nekk coordonnateur yaatal mbindum alxuraan nekk euh, euh, Ranérou moom lañuy ñuy dalal mu wax ak suñu mbokk alpulaar yi ndax ñoom dañuy liggéey ci liggéey bi liggéey bu am solo. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. e wiide en kadi yo allah rokku en tawtede mo wuuri heɗen ɓeydi en gustaki e ko haalde e dow région mo matam e dow inde région mbo kolda e inde région mbo sédiou e, e, e tamba kunda kanji gonɗo journal o wiide noon hoɗo concours o fuɗɗi mi idani région matam windanda ha heewa adda ga so addi ga ɓe mbawata yaltude par que national o ɓuuri ɓe waw windude min ñaagui Eh, bàyyi Serigne min ñaagi bàyyi Fallou min minen koye amen min jiiɗi ko bindol hoore amen par que minen bindol ngol bindata matam ngol e bindol national ngol binda jurbel nandañi ɓe dokki amen min mbawi waɗande koye amen concours mo gandanɗa hoore ma ko région matam tan waɗata so waɗi ha gayni kadi waɗoɓe corrigé ɓe kay matam naɓe tan ɗum ɗon waɗa min mbaɗi ɗum laabi ɗiɗi nde min mbaɗi ɗum laabi ɗiɗi kadi ha min gayni min mbi kadi yomin nanno hen région ngaji goɗɗi ɗi woni kolda woni sédiou woni giganchor e, e matam kono son jii e hoore mum ina winda hitande kala ma won hedde temedde ɗiɗi letere walla temed tati letere par rapport e, e nder ko national o ɗum ko taki sernaɓe wonɓe ɓe matam kadi ko yimɓe hewɓe goni toon son mbi hande qurana alay saago région matam inne hen wadde matame hoore mum hande kamɓe foof ɓe gandi yatal mbindu alqur'an ɓe darima hen ha fewi guila kadi e halifaɓe amen diine wonɓe toon guila e ceerno aliou thiam guila e ceerno men samasa guila e ceerno men ceerno amadou alpha ñangto hande halifaɓe diine wonɓe ɓe e nder région matam foof gandi yatal mbindu alqur'an mhm. waaye lu jiitu loolu oustaz Alioune Sall dafa bokk ci ñu war a jël kàddu Cheikh oustaz ngi lay dalal di wax bismillah rabbi srah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu yal na nu yàlla may dund sama kàddu nag man saa mu ñëwee dama koy baamtu am na ñu wax ci mbind mi ñiy boole boole nañ ñiy discours ñi taalif taalif nañ man nag lef mi may jëm mooy en tant que ku nekk ci wàllu communication nun ñi ci salle bi yépp danoo war léegi suñu jógee fii ku soxlaati ab weer dem c 3 ku soxla aluminium dem C3S ku soxla taabal dem C3S ku soxla wiis dem C3S ku soxla lu ñuy def ci néeg kër yi dem C3S ku soxla lu ñuy tëj ci buntu kër yi dem c 3 ku soxla fenêtre dem C3S ndax koo xamul ni nga koy def ni mu la defa tax te fii nu Serigne Seck féete nan ko féete fii bàyyi fàll bu njëkk ko amoon ay donga da nga leen di jàngal ñu xëyal la tool am de da leen di jàngal ñu xëyal la tool ñun de xëyal leen tool sunu sëriñ ba tàyyi loolu moo xewoon comme sëriñ Seck xëyal nañu nag ci yeesalal ñu mbind bi nan ko xëyal ci jëndal ko bagaasam yi sa bagage yii daal noo ngi ñaan suñu borom yàlla boo mu lambati waaye nag nun ñu nag noo koy def rek bis na ko tey man de bu soobee suñu borom lu may jënd ci loolu tàmbaleel jaay karo dégg nga boole ko ci li ngay jaay ah nun la di man kaan lii laay kaan laawloo bu dul bu dul bu dul alxuraan di di wax ju siiw ci dëkk bi man daal sama kàddu toujours su ma ko jëlee su guddee loolu laa bëgg a wax su kàddu yi gàttee loolu laa bëgg a wax yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ni ñu def rek mooy woo sëñ Jili Ñang mu ñëw présenté ñu ñenn ci gan ñi nga xam ne ñoo fi teew. kilifa yi teew ñu santaat leen gërëm leen bu baax tàmbalee ko ci sëñ Modou Mahfous Mbacké moom soxna May Munatu bintu Cheikhul xadim ku nekk xamoon nga diggante soxna May ak alxuraan waaye sëñ Cheikh Awa Balla itam ak alxuraan sëñ Modou Mahfous buñ ko tuddee dana mel na tudd nañu njabootu Cheikhul Khadim gi fi nekk yëpp. waaye sëñ Maamoor Mbàkke pakka la dafa teewal sunu yaakaar di cheikh Mouhamadul Muntaxa te xam ngeen ni sëñ Muntaxa bu ko mënaloon boppam moom mooy ñëw jiite liggéey bi ndax ñore na ko noonu fonke na noonu itam liggéey bi fonke na noonu itam ñi fi daje ñëpp sëñ Abibu mi jiite Tuubaa ci kanam ñaari doomam la yebal xam ngeen ne dafa daan ànd ak ñun jataay bi fii ay ngànt moo tere mu ñëw sëñ lu ñëw na sëñ Cheikhouna ñëw na ànd ak ñu ànd ak sëñ Ousseynou Niang nga xam ne foo gis sëñ Abibou ñaare gis ko ki nga xam ni it mooy sëñ Abdou Samad mu sëñ Chouaïbou moom it yebal na fi délégation jigéenam itam soxna maam Marème moom it ku nekk xam digganteem ak alxuraan moom it yebal na doomam sëñ Saliou mu ñëw Cheikh Mohamad Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir dafa bëggoon ñëwal boppam mu woo sëñ Modou Mbacke sii mii nga xam ni fu mu teew daañu xam ni yoonu murit a fa teew sëñ Modou Mbacke si mu sëñ Moustapha si bu sëñ maalik Bassine si moom nag dama naan sëñ Mbacke ñëwam benn sànni la bu bu jam ñaar ndax ndax ndax kii ñu tuddee moom mënoon na ko teewal moom kese bu teewoon dana doy sëkk. waa daayira mu xadamatul xidma ñoom it teew fi teewaay bu am solo ki jiite délégation mooy sëñ Abdou Khadir Mbacke délégation Ngaye Mexe euh, sëñ Abdou Samad Mbacke moom it ñëw oustaz euh, Cheikh Thioub moom it teew na teewal association imam ak ulama yi nekk ci réew mi yëpp ñu ngi koy sant bu baax sëñ Ma Yacine Seck ak délégation bi mu àndal sëñ Mahmoudan Seck kazalika naka noonu ñoom it ak délégation bi ñu àndal délégation Ndiassane muy délégation bu am solo euh, sëñ Thierno Kunta euh, jiite ko ànd ak euh, sëñ Sidi Makhtar Kunta professeur Birane Ba ak ki nga xam ni mooy oustaz bu Mohamed Kunta sëñ Thierno Lo indil lan ma ko léegi moom it teew na. dañuy ki nga xam ne mooy sayda Adja Binta mu jege si. comme Seyda Binta mi ñëw moom mooy invité d'honneur bi comme ni ñu ko waxee di nit koo xam ne dundam gépp ci. alxuraan la ko passé di ci jàmbaar joo xam ne ay ay ay téeméeri téeméeri nit euh, mokkalan loxoom ba léegi mu wéyal liggéey boobu tam yor ay daara yoo xam ne ay jirim la ci fat di leen taxaw asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yu tedd yi ginnaaw sant yàlla googu ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm yàlla ak xéewalam mbokk ñu ngi yëkkati kàdduy ndokkeel ci sunu mbokk yi nga xam ne ñoom la yàlla baaxe ñu taxawal liggéey bu rëy liggéeyu alquran bu toll nii waaye di leen sant di ñaanal mbokk yi nga xam ne ñoo organisé jongante alquran ci yaatal mbind mbindum alquran ci c s te jëwrin ji di ji sëriñ Seck yal na ko yàlla sàmm aar ko yàlla fay ko yàlla fay mbooleem ñi nga xamante ni ñu ngi jàppalanteeg moom ci liggéey bu ama am solo bi nga xamante ni moom lañ taxawee mu mel ni comme ni ko ñi ñu jiite waxe léegi mbindum alquran loolu démbi islaam la ba tax na werante amul ni yool bi nga xam ni yàlla subhaanahu wa taala ko digee ci njàngum alquran ci àddina ak alaaxira sikk amul ni ñii nga xam ni ñoom la yàlla baaxe ñu mokkal ko bind ko te xooluñu ko indi tomb yi masque yi taxawaay yi xëcc yi ñooñu fay googa am nañ ca lu baree baree bare yal nañ ko wërsëgloo ndax kat ñoom ñooy sabab ci ñu ñun ñu mën a jot ci alquran sunuy doom mën cee jot sunuy setitam mën cee jot kon xam naa li ñuy wax waa c s ak mboolem ñi leen di jàppale dañ leen di ndokkeel ci tawfiq ilaahi bi lii kat lu yàlla baaxe nit la waaye du xam-xam taxul nit mën ko taxawe am-am taxul nit mën ko taxawe xel mu rëy itam taxul nit mën ko taxawe waaye yàlla mooy dimbali nit tànn ko pour mu mën a yëngatu ci téeram bi aw summa awrasna alkitaaba alladina stafayna min ibadina kon tànn boobu leen yàlla tànn ñu ngi leen ci ndokkeel di leen ci ñaanal yàlla na leen yàlla nangul nangul mbooleem kuy jullit kon xam naa dañuy tàllal suñ loxo ci képp koo xam ne jullit la mu dugal loxoom ci liggéey bu rëy bii di yaatal mbindum alquran moo xam xalaat la moo xam am am la ñu indi jàppale sunu mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk ci C3S ci liggéey bu rëy bii ndax ñuy ñaan yàlla yàlla dimbali ñu ñu dund ba sunu daara yi téere njay jàng mu nekk mbind moo xam ni sunu loxoy doom yi la te lool bu boobaa dina neex dina am solo te loolu dina nekk jëm karam lool wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sallam jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Adja Binta kon ñu jox sëñ Saam mu ñëw ak ñun ci suñu gan gi bismillah salaamaaleykum ixwaani alxudur wa nuqaddim lakum dayfana hada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 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين أنا مسرور جدا بحضور في هذه الحفلة المباركة في أجواء شهر رمضان المبارك شهر نزول القرآن الكريم والحمد لله هذا التوفيق والسرور والشرف لي أن أحضر في هذا الحفلة الكريمة وأشكر من منظمي هذه الحفلة المباركة لخدمة القرآن الكريم كل ما يتعلق بالقرآن الكريم هو مقدس ولا بد أن نكرم يكون من قراءة القرآن الكريم من حفظ القرآن من كتابة القرآن من توزيع وطبع القرآن الكريم كل هذا العمل عمل إلهي وفي طريق إلهي إن شاء الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هو شفاء sëñ mu mel ni ñi nga xam ne ñoom ñoom lañ dara jaale bis bi ñoom ñoo yëkkati kàddu ñoo yëkkati kàddu ginnaaw bi ngeen seetee seetaanee reportage bi mu ñoom itam ñu ñëw vraiment ànd ak mbooloo mu bari maa ngi yëkkati sama kàddu ba tey di berndeel mention spéciale C3S wa fii muqaddimatiha alaaji Serigne Seck wa comité d'organisation di ànd ak ñoom ci seen xel mu rafet xalaat créer concours bu mel nii importance bi mu am anwaa mutahaddida min ulum min ulumil quran yi ci nekk du wattu alquran dong amma sëriñ maxtaar xadisi mi nga xam ne moom lañ dara jaalee bis bi waxtaan ci moom dana jafe rawatina man man dama fer rek jox ma am ci am mu am ñaari côté loo xam ne lii moom da ko mën a wax xam naa su ma dee wax ay baat foofu laa koy wax ak goo xam ne gii moom dee su ko mën a wax dañ koy dund dund koog moom di ko gis saaniya par saaniya daqiqa par daqiqa ila axiri waaye daal li am mooy lan Sëriñ Maxtaar Xadis ngëmam gëm yàllaam ga ak tawxiidam ga lillah foo ko nattu rek weesu na foo ko nattu weesu na léppam fi darraai wa sarraai léppam da ko daa delloo ci yàlla rek mënoon naa andi ay ay amsila kasira waaye xaju fi sëriñ maxtaar xadis yi karrasa xayaatuhu fi tar fi tarbiyati awlaadi almuminin wa tarbiyatihim alquran alkarim sëriñ maxtaar xadis yi kaana muridan sadiqan wa siddiqan fi iradatihi ma sha allah jahalahu llahu min alsiddiqina wa suhadai wa salihina wa salihina wa hasuna zalika rafiqa yàlla nañu ko yàlla fayal bon bi nga xamante si nii euh, yëgal nañ leen bis bi ni yéen nañ ko dara darajaale njaboot gi dañoo dajaloo lu tolloo fukki nit ak ñaar fukki nit ak ñaar dañoo dajaloo bind ab kaamil bi ñu bindee ab kaamil nag ñu ni kaamil boobu dañ koy jël tere la ko alaaji sëriñ Seck kon bu ñu jëlee fukki la ñaar kaamil bi di ko jébal alaaji sëriñ Seck Mbàkke loolu dafa mel ni ko honneur la te itam teraanga la am na solo kon kon public bi seede ko ñu jox ko alaaji sëriñ wéyal programme bi ñu ngi lay sant bu baax sant koo xam ne nag famille ñi sant si ñëpp ñoo la koy sant famille la boo xam ne nag famille bu yaatu la te ki nga tuddee bis bi muy sëñ Maxtaar bànneexu àdduna man moom a jàng yar ma bànneexu àdduna mosu ko am du kër gum dëkk du oto bu muy dawal du ñaw muy lekk kaamil bii nag ñaar fukki nit ak ñaar yoo xam ne njabootu kër gi la ñoo ko bind ñu fukki nit ak ñaar di njabootu kër gi defe naa li nga bëgg rek lañ la indil mooy alxuraan defe naa amoo amoo yow lu ëpp lii gënoo bëgg yi lu ëpp lii kon nag ñu lu koy jox ci turu suñu Ibra Aada Si ak sëñ Mourtala Si muy ñaari xalifa sëñ Mourtala Si ak sëñ Malick Bassine wa man yabtaxi gayra alislaami diinan falan yuqbala min wa huwa fi l axirati min alxaasiriin na bi mu ubbee foofu la yem képp koo xam yaa ngi sonn te sonnoo si toolub lislaam sa coono boobu nen la kon day mel ni loolu dëppoo la boo xamante si ni mbokk yi lu am solo la bi mu ubbee foofu la yam loolu la borom bi tabaaraka wa taala dogal muy tawfiq sëñ Mbàkke mun ñu ko jàppe lu dul tawfiq di ñaan nag mu nekk liggéey boo xam ne bu wéy la njàmbaarug mag ñi nag danaa leen ko tënkal ci ñaari baat door leen a indil nangami boole ndax dafa am kaang ma doon tari ne xalaqal insaana min salsaalin kal kalfa xeeri daan kalfa xeeri kal fa jéeri njombaan kal xeeri bayaan kal fa sidda yar kal xeeri daa ne fa bi ayee ngoog duma ko laal marajal bahrayni yaltaqiyaani baynahuma barzaqun laa yabxiyaani fa bi ayee ngoog duma ko laal ba tabaarakasmu rabbika dil jalaali wal ikram meneen mag ma ca des na ko boppub aayab fa bi ayi bu ne danaa wax leetar bu jëkk ba muy xaraf bu jëkk wa mooy na li naan xaramayu wa ku yasa yayufafa yuhawazu fii fii mu fii kahawa mu fii fii fiihi hu lam muta tabaraka smu rabbika dil wal ikram kon tàmbalit aayab rahman bu ne andi naa ko mag ñi ne faddaratum laan saddaakum naar xatta ida daarakoo la araaf saddaakum ñuuleen balit daaraka namli saddaakum naar lawla an tadaarakahoo ca xalami ñuuleen laa ko jam-jam dalal sëñ daam jaane bu noppee sëñ mahmadan jeng mooy yëkkati kàddu sëñ Mbàkke jàmbaaru alxuraan dafa dugg si ah. sëñ basiiru Mbàkke mu sëñ xaadim awa ñu dalal moom it di jàmbaar ñu dalal ko ànd ak rakkam sëñ maam cheikh Mbàkke bu AES yëkk day ñeme njam mën a njam mel ni koy mi ci gétt gi daal bëgg woy fonk woy mën a woy ku ma sóoru ci way dinga nga jaal <laughs> ku bëgg a taaralaat néegam mbaate ay salon décoré ko xeetu taabal ñee ca mën góor inox ak aluminium piir ñoo ca raw Europe moo xam ci vitre ak balcon nee fa bonjour bonjour sëñ say buntu daa màggatoon yow kayta soppi ko muy buntu saal buntu néeg ak ay palanteer am nañ fi ay porte garage ànd ak commande ak porte intérieur ak extérieur fer force ramp yu taaru boole ko wóor ku bëgg ay seng am na pour toiture la yombu leen ñee ko yombal ñépp a ngi bëggee moo tax ba waa réew mi ñoom lañ far suwaasiir di rappeler bu baax baax rek li waral jataay bi li waral liggéey bi li waral liggéey bi mooy comme ni ko ñépp waxee C3S di kër goo xam ne dafay yëngu ci alxuraan yëngu bu ma nee yëngu ci alxuraan monsieur le ministre damay attirer sa attention bu baax a baax ci loolu ndax ay kilifa ngeen yoo xam ne war ngeen euh, yëg bu baax a baax a baax liggéey boobu euh, bi muy yëngu ci alxuraan yor daara dem ba xam ne lii di mbind dafa bokkoon ci daara waaye commencé naa commencé naa di di di di di manqué ci yenn daara yi moo tax mu taxawal lii. ko gën a renforcer kon formation bi nga xam ne yittey état la c 3 ànd ko ak yéen kon. di ca di ca di ca di ca liggéey liggéey bi am solo di encourager xale yi di leen tegal ay prix ngir nu gën a mën ja euh, takkaat seen laxasaay gën a mën a indiwaat mbind mi ci daara yi loolu objectif boobu moom mooy mooy li nga xam ne moo waral euh, moo waral concours bi ci lu gàtt rek euh, ñuy wax ne concours bi dana ko dañ ko jàppe ñun ñëpp ne service kon service public la ndax ku wax jamono jii nga xam ne moom lañ toll ñuy wax euh, li nga xam ne mooy tourisme religieux wala di wax itam affaire art ku ñëw ba gis ñii di binde ministre euh, kon ministère de l'éducation nationale na xam ne ñun moom lañ fi teewal liggéey bi liggéeyam la waaye itam ministre de la ministère de la culture moo xam ne itam liggéey bi liggéeyam la waaye itam ki nga xam ne moo yor lépp lu tourisme ak yu mel noonu moo xam ne liggéey bi liggéeyam la ko di wax ne itam si perspective concours bi téere bi ngeen gis sëñ Mbàkke ñëw na si sànq bëgg nañ dem ba di présenter kaamil boo xam ne fu ñu ko tuddee nan lii kaamilu alxuraan bii kat kaamilu Sénégal la comme ni muy amee si Tunisie ak feneen ak feneen nag ci lii la commencé yoo xam ne commencé nañ ko bind di ko tasaare fépp ci Sénégal di ñaan ngeen ñaanal nu ba liñ ci mébét lépp ñu amee ko ñu kawe suñu njortu bi barakat rasulillahi alayhi salatu wasalaam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi di jiital ci nuyoo bi alxaaji Sëriñ Seck mi nga xam ne ci taxawaayam bu rafet ak kóolu téem mu dénk mbooloo mi liggéey bu toll nii liggéey bii ñu nekk nag tey dafa am ay mbokk yuñ ko àndal yoo xam ne mën nañ ne bu doonu bâtiment la ngay séen te kaw ñu di ko tudd fekk na la tax bâtiment ba nekk fa mooy fondement ba muy mbokk yi ci sunu ginnaaw di ay borom xam-xam yoo xam ne comité scientifique bi njiit rek laa ci ciw waaye liggéey bi ñoom ñoo koy def ñu mën cee tudd ki jiite jury bi muy sëriñ docteur Moustapha jóob Ndar ak sëriñ Mbacke Abdourahman sëriñ Cheikhouna Abdoul Wadoud nga xam ne ci secrétariat bi la nekk ak sëriñ Sam Mbàkke moomit taxaw na fi def fi ay liggéey yu am solo présenté nañ leen ko ci làmmiñu sëriñ Mbàkke Sourang sëriñ Mbàkke Sourang moom mi taxawoon fii ci comité boobu la bokk suñu rak sëriñ Mortala Ndiaye sëriñ Hamdi Moustapha Diop sëriñ Xaadim Ñang afe ci daa di jàngalekatu alxuraan moom it sëriñ Daawuda Saaxo sëriñ Saaliwu Silla sëriñ Moustapha Gaye sëriñ maam Balla Silla maam Cheikh Ndiaye sëriñ Alhaaji Ndiaye Cheikh Ndindi suñu rak sëriñ Bachiru Jang ci njaareem sëriñ Alhaaji Jaxate bu dee ci jigéen ñi soxna maam Xawa Dem moo jiite soxna yi nga xam ne sëriñ Ousmane Dia moom itam ci Raniiru nga xam ne côté Fuuta bi yépp moom moo koy coordonné Matam ak Kolda ak Sédhiou ak Ziguinchor yu mel noonu kon ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo féetewoo liggéeyu scientifique bi tëral norme yi nga xam ne ci la ñuy xàmmee kii jiitu lu tax mu jiitu ki des ginnaaw lu tax mu des ginnaaw te lépp tege ci xam-xam tege ci maandu an nasul quraani yi moom la concours bi yittewoo moom la concours bi di toppatoo waaye itam nag jublu ci ginnaaw loolu mooy tur wi buñ ne yaatal mbindum alquran tur waaw rek yaakaar naa borom xam-xam yi coow nañ ci lu yàgg a yàgg ndax alquran a ngi fi woon néew ñi dañ koy delloo si mbindum alquran waaye dafa xat mooy ay rox gox yu néew néew lañ koy fekk su fekkoon dañuy wax ci wàllu xam-xam ci alquran ci Sénégal ni nga xam ne xam-xam wane na ko expérience yi ñu def wane na ko mën nañoo tasnif quraan ci ay xaaj bu fekkee ci wàllu mokkal ko bind ko te doo ko gis mën nañ ne tuuba ak ay awaasimam lu ci aju ki foofu la xaw a des mooy mokkal ko tari ko bind ko te doo ko xool te mbind mi rafet waaye boo demee itam ci bu dee fuuta lu mel ni ki la ca aju lépp ci fuuta wàllug rasmu bi nga xam ne moo tax ñuy wax rasmu nga xam ne xawaayid dabt ak rasmu li ci aju ak nusuus yi ci am ak téere yiñ ci bind niñ koy mokkale ñoom ak nañ koy fonke ñun mën nanoo bind kaamil bi mu rafet def yëpp waaye xawaayidu rasmu yooye nag moom itam ñoom ñoo ca ñoo ca man waaye seen bind boo ko xoolee boo ko dendalee ak suñ mos daa mel ni mooma du xaw a demee neen ni le président de république heure bii démb la yeble woon fii ndax alxuraan tey mu yebal sunu mbokkam taalibe muy Alaaji Mbay Njaay di nit ku yàlla baaxal benn baat rek laay wax ci benn alxuraan mii ñuy wax bindaat nag sëriñ mii dafa doon na alxuraan ndax bàyyi daan mi ko jur maam Madou Badiane mi ko meññ maam sëriñ Tuubaa ko woolu ca njaareem ci ndigalul waar mi ko jur mu di ko bindal ab kaamir looloo tax Biden mi mel ni sëriñ bi mu feeñee ci bayti fekk Mamadou Badiane di bind kaamir ba ca kër sëñ Touba ca njaareem fekkewul ba ñu koy waxtu aw tur dafa woote ne liggéey bii ma sëñ bi sant ma am gan sama ginnaaw gan gi tedd na waaye ma ñëw looloo tax naar bu sell bu mënoon alxuraan bu sëñ bi indi woon moom la ma Mamadou Badiane mi jur Biden mi jur sëriñ ne nañ ko delloo tur woowu président de la république son excellence Macky Sall mu ngi nuyu mbooloo mi yëpp nuyu Sénégal yëpp rawatina kii nga xam ne mooy suñu kilifa ñu fekk ko fi muy sëriñ xaban Mbakke mu sëriñ Falilu Mbakke bu Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ah sëñ Seck sa liggéey bii nga yëkkati pour jox jëm alxuraanu karim waxu suñ borom tabaaraka wa président Macky Sall nee na na xam ne daanaka moom ngay liggéeyal ci jamono yii ñu nekk yàlla suñ borom tabaaraka wa taala moo joxe moo joxe li ñu tudde nguur quli allahuma malik mu tuutil mulk man tashaa wante lii liggéey doomu aadama lii tax doomu aadama nit di nit alxuraanu karim la alxuraanu karim la suratu baqara def ñu ko wax ci lu leer amul benn sikk-sikk alif lam mim zalikal kitaab laa rayba fii hudan lil muttaqin président Macky fi mu jël diine pour ñu dugal ko ci mbiru njàngum école bi nga xam ne démb ak barki démb dañoo rocci woon loxoy diine ci njàngale mi tey ji président Macky Sall mu ngi ñuy won ne Sénégal réewu diine mënuñ fee génnee loxo état ci doxalinu diine bi ci na mu gën a rafete ndax diine nag ku fi yore réew jàppale diine bi diine bi dana la jàppale ku fi yore am réew jàppale woo diine bi bëgg a def leneen danga xam ne yàlla moom pare na ak alxuraanu karim pare na ak doomu aadama muhammad sallallahu alayhi wa sallam won nañu yoon te yoon woowu yaa ngi ci Seydi Seck yal na la yàlla jàppale dama doon wax rek ne euh, maa ngi indi rek nuyoo le chef de l'État pour tout la communauté islamique asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbooloo mu fi daje ñëpp ci tuuru Cheikh Mouhamadul Muntaqa waaye ci kàddoom waaye ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Xabaan wi nga xam ne moom la sëriñ bi dénk mboolem la aju ci daara alxuraan yi man daara ay daara yi boppam la may saytuloo waaye mboolem la aju daara yi Tuubaa sëñ sëñ Xabaan mi moom la ko dénk sëriñ bi nee na mi ngi santaat yàlla bu baax ginnaaw mu jotlee ay nuyoom ci alaaji sëriñ mi nga xam ne yitteem ju rëy ay yitteem ju kowe moo ñi mu àndal liggéey bi ñoo taxawal lii nee na am na yëg-yëg bu baax ci liggéey bi di ko bàyyi xel bu baax waaye di leen sant di ko àndak ñoom waxtu wu nekk nee muy liggéey boo xam ne mooy lépp lépp lu baax ci alxuraan la soqi ko ndax alxuraan mooy fondement lépp kon mokkal bu sax mbind koy joxe kon sëriñ bi nee na ñu ngi koy sant bu baax moom mboolem ñi nga xam ne ànd na ko ñoom. dafa am délégation bu am solo boo xam ni dafa jóge ci xalifa ki nga xam ni mooy sëñ Modou Badiane muy sëñ Ma Yacine Seck ak sëñ Mouhamadou Seck ñoom ñoo représenté sëñ Alaaji ñaxar mi nga xam ni mooy xalifa sëñ Modou Badiane mi nga xam ni moom mooy lépp njaboot gi. di sant rek ñu seq liggéey mooy comité scientifique bi tàmbali sëñ Xaadim Ndiaye bu mu ko tuddee tudd sëñ Moussa Diom Ndar dafay daal di yóbbu ñëpp xanaa teg ci waa C3S ba tey ñoom itam ñu yor comité organisation bi wax dëgg ñoom itam taxawaay bi ñu am euh, am na solo lool ci liggéey bi ndax. mën naa liggéey bi lépp rek ñoom la joy te toqi ci yokkatuñ ci ka ci ka ci njëkk ba ka ca gën a suufe amu ci kenn kook rek yokkan nga ci ñett bu fi mu tuddee Dame Touré mu daal doy ak euh, Mamoun Fall ak euh, Mahmoudane Dieng kon daam yi nga xam si moom ba tey ñoom moo leen jiite su ma ko tuddee rek mu doy ni ma koy waxee toujours rek ab taxawaayam ak ku yittewoom liggéey bi ak sawar ci ak bëgg ko fu ma ko weesu na ko ba tax na man mii lu ma dañ ma ji tudd rek waaye lu ci ëpp rek moom noppal na ma ci ndax maa moom ëpp jor gi te moom a gën a woyof te nangu itam mooy li am solo te dafa daf koo def muy moom muy Mamoun muy Mahmoudan xanaa nag di ci teg ñi xam si ñoom te bi ngeen gis ñoom ñoo koy liggéey at mu jot ñoo koy liggéey te kenn du leen gis. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi barakaatu jërëjëf sëñ Baye Fallou Seck woo ki nga xam ne mooy imaam Cheikh aw Balla Gueye mm-hmm. mu ñëw joxe kàddu yi nga xam ne mooy kàddu yi cant yi bàyyi ko ci alaaji sëriñ bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi nuyu ñëpp ci turu alhaaji sëriñ Seck di sunu mbokkum daara di yëngutu ci lef mi ñu bokk te doon ci jàmbaar lool ci wàllu xam-xam ak wàllu yëkkati xam-xam wala xarwa bu ngeen xamee cosaan li muy jariñ ndax daara jii biñ ko sampee yàgg na mat na ay siècle wala bokk ko ab siècle boog lu ko jege mu dekk ci daara ji ñu taamu woon mu daan génne ay boroomi xam-xam di génne ay nga ki fóore lii wane ni daara ju am solo la man yëg naa ni bokk na ci ñi taamu won daara ji Mawlana Cheikh Shuaybu Mbakke radiyallahu taala anhu ndax daana jële ay donga ci daaraam yóbbu ca daara jooje kon nag mu nekkoon leçon boo xam ne nun jàngalekat yépp sax war nañ ko roy ci turu nag euh, daara jooju te alxaaji Sëriñ Sekk nekk ci bopp bi ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm ñoom alaaji xaadim njaay ak ñi ñu àndal ñoo ñu nga xam ne ñoo doon gërëm nit ñi ñoom la ñuy tàmbali ci gërëm leen ñoom itam sant leen ci teewaay bi ak liggéey bi ñu tàmbali bu yàgg-yàgg nga xam ne ay weer a ngi nii yéen a ngi leen di door a gis waaye ay weer a ngi nii ñuy seqi ay jéego ba wër sax réew mi di dem fu nekk di dem ci ku nekk di leen yëgal ndaje mii ak di leen wax solos ndaje kon alaaji sëriñ mi ngi sant waa alquran ak ñooñi alquran ndax yëg nañu bis bi teewal nañ fi alquran bu doy sëkk mooy téere bi nga xam ne moom rek moo dib téere beneen téere bu ne roy waaye royaat rek waaye moom moo dib téere muy eh, suñ mbokk yi nga xamante ne ñooy corps diplomatie bi nga xam ne ñoo fi nekk mhm. dañuy woo ki nga xam ne mooy Ali Ridwan eh, Ali Ridwan Wasim mooy yëkkati kàddu ci seen tur bismillahi rahmaani au nom d'Allah. Euh, je suis très content de participer dans ce euh, concours calligraphique islamique. Et tout d'abord, je dois bien remercier les organisateurs de cette cérémonie. Et en tout cas, euh, je dois très, dire quelque chose à propos de femmes euh, sénégalaises qui sont bien travaillées dans le domaine du Coran et la science coranique. Parce que les, euh, les femmes sénégalaises qui ont bien travaillé, et ça sera euh, très important dans notre vie, parce que notre enfant, euh, ça sera bien éduqué pour euh, bien euh, travailler dans la société sénégalaise. am na lu ñu bëggoon a wax ci concours bii ndax concours bi ni ko bokk yu bari waxe concours spécial la boo xam ne xamuñu fu mu am ndax concours bi dafa boole ñetti concours ci biir fokk nga mokkal alxuraan fokk nga xam nu ñuy bindee alxuraan waaye fokkit nga rafet mbind ci mbindum réew mi benn bu ci nekk manees na ca organiser concours gañe ca gañe ca dana jafe kon suñ ko boolee kooku kon jafe na euh, alhamdulilahi rabbil alamin ki nga xam ne kii mooy ñëw di bokk ci concours bi ñëw ba finaal daañu ko xayma ci jur ci ñeenti wet wet gu jëkk gi mooy mokkal alxuraanam wetuk ñaareel mooy ndax xam na bindiinu quraan ñi koy wax al rasmul ñetteel bi mooy sikki bind ndax comité bi dafa dafa tër ay nattukaay yu mu tuddee sikki mbind sikk yooyu boo ci tàbbee ci benn day wàññi say poñ bi ko ñeenteel mooy ndax mbind mi rafet na walla rafetut kon képp ku ñëw ba finaal dañ la jaarale ci ñeenti nattukaay yooyu suñ mbokk jigéen ñi njaboot gu jigéen gi nga xam ne it dañoo sonn ci alxuraan di bokk ci concours bi def ci liñ man lépp ak guñ ci dayo góor ñi waaye nag eh, alxaaji sëriñ euh, da leen di teral ñoom ndax seen njàmbaar ak seen jàpp bañ kon ñooñu bu ñu jàllee am na fi gone yoo xam na it am na fi xale yoo xam ne ñoom it ngir seen at yu néew ñu wattu alxuraan man koo bind ba ñëw ci concours bi ba ñëw final xal yooyu it doonte gàññewuñu ah, alxaaji sëriñ daf leen di teral kon ma tàmbalee ci groupe bu njëkk bi di woo soxna maam Awa ak soxna Mbayang Fall soxna Mbayang Fall ci jigéen ñi bind soxna Mbayang Fall soxna Mbayang Fall maam Bintu Sëy ak soxna Bintu Jóob soxna Bintu Jóob waaw hmm. kon ñetti ñooñu ñoom lañuy jox ay neexal ah, ki nga xam ne kii mooy soxna maam Bintu Sëy ci cent cent poñ yi laaj am na ci soixante-dix-huit virgule soixante-quinze demal bu dee soxna Bintu Bintu Diop am na soixante dix virgule soixante quinze. bu dee soxna Mbayang Fall am na soixante deux points kon ñi El Hadji Serigne euh, ak waa kër gi dañ leen di sargal di leen encourager ngir seen njàm njàmbaar ci liggéey bi. ki nga xam ne kii moo jiitu di soxna maam maam bint sëy moom am na million cinq cent mille un million cinq cent mille ak euh, diplôme d'honneur ki ci sës di soxna bintu Diop am na un million ku ñetteel ki di soxna Mbayang Fall am na cinq cent am na huit cent mille huit cent ay wa gars yi tàccu leen waaye bu baax nag ah bu baax a baax a baax waaw kay jàmbaar dañ koy tàccu te ñëw ci ñaareelu groupe bi ñaareelu group bi ay xale lañu yoo xam ne ay tout tànk lañu waaye suñ borom may na leen ñu dox ci concours bi ba avancé ci am na ci koo xam ne sax ñëw na ba final ci loolu it El Hadji Sëriñ wax ne ñooñu nañ leen encouragé jaajëfal leen sawarloo leen ndax seen mbokki gone yi tuut tànk yi ñoom it gën a sawar ci concours bi kooku bokk na ci ku ñuy wax Cheikh Fall. Cheikh bokk na ci Xaadim Sàmb Xaadim Sàmb ana ñoom ñaar ñëpp ñu ngi bàyyi ko ci daara yi Serigne Daara Ndiaye. ku leen koy ba tax na euh, concours bi kon dafa wax ne sëñ daara moomu sax daañu ko jox diplôme d'honneur macha allah euh, gonek ñetteel gi mooy sëñ Habibou jóob sëñ Habib Diop Habibou Diop mooy suñ doom ji toogoon fii suñ borom nattoo ko mënta wax te muy liggéey ci alxuraan liggéey boobu ñu wax kon ñoom ñett ñooñu su ko defee ki di Cheikh Fall ak Xaadim sàmb ku ci nekk am na six cent mille francs sëñ Habibu Diop am na cinq cent mille francs sëriñ Daara Ndiaye am na diplôme d'honneur cinq cent mille moom lañ jox sëñ Habib Diop sëñ Habib Diop mooy ki doon bind toog foofu léegi du dégg mënta wax waaye mokkal na alxuraan ba man koo bind bokk ci concours bi jàngal ay nit bañ mokkal alxuraan moom la ñu décoré noonu jox ko téeméeri junni mbokk yi ñu tàcc loolu bu baax a baax macha allah ku ci topp sëñ xaadim sàmb diplôme ni sàmb sëriñ xaadim sàmb jox nañ ko six cent mille moom itam jox nañ ko six cent mille sëriñ Cheikh Fall ñu jox ko moom it moom it six cent mille sëriñ daara bi ñu jox euh, neexal bi moo jàngal ñaari donga yi ñu décorer ay am moom it ñu décorer waale ko waaye sëñ Mbàkke waaw daanaka ma doon nañ 421 ñi bokk ñëpp waaw moom mi daay ñëw ànd ak i dongaam waaw waaye moo leen jàngal bokk si concours bi ñu bokkoon nekkoon 421 macha allah ba mujj bokk si ñaar fukk yi mujj kon tamit moom aaja nañu honoré ko décoré ko loolu moo waral ñu jóge dara muy Serigne Daara Ndiaye mi ngeen di seen kon bokk yi ñu jëm ci group bu mujj bi nga xam ne ñoom ñooy lauréat yi ñoom nag xëccoo bi dafa tar ndax ni ma ko waxee concours bi dafa yombul waaye teewul toujours li leen di teqalee tuuti lay doon nga xam ne kenn ku nekk nga xam ne kenn ku nekk mën naa jël ndam li waaye nag concours fokk dana am koo xam ne mooy ne ci kanam ak ku ca topp ak ku ca topp ndax bu ñu xoolee ki nga xam ne kilee mooy ku ñetteel ki ki nekk ci troisième position bi am na quatre vingt virgule six cent vingt-cinq ci téeméeri point yi ñu ko doon laaj ci cent points yi am na ci quatre-vingt-huit cent vingt-cinq ki nga xam ne kii mu jël deuxième position yi am na quatre virgule six cent vingt-cinq quatre-vingt-neuf point virgule six cent vingt-cinq ki nga xam ne mooy mooy ki jiitu kooku am na quatre-vingt-quatorze cinq kon na bokk yëpp bàyyi xel tableau bi walla écran bi ñu xool ba xam. aywa ñu xool écran bi ñu xool. ñu xool na ñun ñëpp ànd déglu écran bi. yi nga xam ne dañuy ngi nii oh, sëñ Moustapha Guèye kon moo génn mooy premier mooy troisième ah ñu tàcc ko bu baax mooy troisième Seyda Adja Binte Thiaw moo koy jox euh, diplôme am moo koy jox itam enveloppe am taaj 5 millions yi a baax a baax macha allah sëñ Moustapha Guèye am tegal ko ci enveloppe bi concours bi li doon bari bari moom moo jël troisième sëñ Moustapha takbir takbir allahu akbar allahu akbar kon ñu ñëw ci deuxième bi deuxième bi waxoon naa léegi ne am na quatre-vingt-neuf points vingt cinq points digganteem ak kay benn point moo ci dox diggante troisième bi ak deuxième bi benn point moo ci dox kon ñu dem ci écran bi deuxième baa ngi noonu Modou jaañ mooy deuxième bi kon Modou Diagne Modou Diagne moo jël deuxième bi ñu tàcc Modou jaañ bu baax sëñ Muntaxa Pakala moo koy jox neexalam bismillah enveloppe bi la ko sëñ Bass jox mooy am 5 millions 500 ñu moo du jaañ bu baax a baax am diplôme bàyyi Modou moo jël numéro 2 ci concours yaatal mbindum alxuraan bu 2023 am na 5 millions 500 moom la ko c 3 jox. xam na nag moo jël raw gàddu gi di premier bi kooku am na 94 points virgule digganteem ak deuxième bi quatre points et demi moo fi dox ñeenti point ak genn wàll digganteem ak ku deuxième ki kon ñu xool écran bi ba xam ma anta bi ni'mati ربك بمجنون Cheikh Dieng mooy jël première mbokk yi ñi ci saal bi ñëpp ku say tànk métti wut jógal taxaw ku say tànk métti jógal taxaw jóg taxaw ñu tàccu Cheikh Dieng bu baax a baax a baax. waa koy am mi ngoo kon Cheikh Dieng moo gagné première bi am na 6 million moo yëkk mi ngi noonu sëñ Modou Mbacké si moo koy jox am na 6 million moom mi gagné concours al bind bi di sëñ Cheikh Dieng ñu tàcc ko bu baax a baax mbokk yi. sëñ Mbacké. waaw moom moomu ne ab jàngalekat la. maanaam depuis ñu commencé liggéey ba léegi mi ngi bokk. ñi nga xam ne jotoon nañu ñëw ci final bi mbooleem ku agsi woon ci final mbooleem ku ñëwoon final am nga enveloppe 500000 mbooleem koo xam ne nangu leen ñaan nangu ñaan. mbooleem koo xam ñëwoon nga ci final bi am nga enveloppe 500000. waaw. anta bi ni'mati rabbika bi majnun